maa ngi dégg ay yëngutu ci dëkk bi yoo xam ne yu ma jóge kaw la ah, lu mën a xew daal li nga xam ne mooy ndigal li mooy na ñëpp na daal te dellu seeni kër ba suba jàmm nu seet ba xam lii indi yëngu bi ak ak la koy tax a dal waaye la ci gën a am solo daal moom eh, ñépp